ah Hadj Mansour ma ko jag biram ngoor asanal ak wéeji Ndiaye ci sama waa ji fu baax fii fana fii daal ala jéeri ngone ah. fii lay not dalloo fii laay nopplu ko fii mooy Mbour Express macha allah saa yu wàccee ci teer bi rek fii laay dalloo baa xam nga leen ah Caaroy de fii laa juddoo fii laa màgge fii laa yaroo wallaay ndeysaan te mosuma fee gis lu mel nii lii da xanaa teer beeg fii fii nag boo gisee Mbour Express tubarkàlla heure weeru koor gi weeru koor gi ñëpp fi la ñuy ndogu see ku wàcc teer bi rek fi ngay dugg ndogu lépp a ngi fi lépp a ngi fi. tubaarkàlla luy nooyee yëpp a ngi fi. tubaarkàlla. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yéen laa nuyu de. waaleykum salaam. kan mooy jaay fii. yow kii kana. ah jaay fii. dama ci feneen. mooy xool nii rek. ça na nga def. ça va alhamdulilah yaa ngi jàmm. la. Euh, loolu brochette la ak pizza pizza. pizza. defal ma ci 19 ah. d' accord amul benn ah. problème. xoolal maanaam man damaa xaw a yaakamti ci gàttal. li fi nekk nii. waaw yëpp bu ne defal ma ci 19 bu gaaw. d' nga ah. loolu mooy seen du ay boisson. waaw ay jus locaux la. Ah. waaw am na bisaab Dakar. waa yëpp defal ma ci yooyu 5 5. d'accord buñ nuroo nag mixé ko ah. waaw léegi lépp ñaata la. lépp euh, booy xool si doo wax. loo wax euh, ah, yow. kañ dama lay ñaanal rek yàlla nga gudd fan lekkal mu des jàmm kañ jëlal lépp. am léegi xoolal terre bi laa jël fii. dugg biir town am lu ma liggéenti fët fët ñëwaat fii incha allah parce que léegi yéen da ngeen a yombalal lépp mhm. ni ngeen def nii ci koor gi nii lii nag temps la mhm. parce que da ngay dugg ci teer bi dugg biir town baa nga dugg ci pierre teer bi dem ba jam ñaajo mhm. tourné waat ñëwaat ba fii wàccaat ci teer bi ndànk dugg jënd say médecin say say intermédiaire say manado formidable tout <laughs> dem dogo ji te kenn du kaas. dëgg la da am jàmm de yéen. amiin amiin. leen rek. amiin maa la wax loolu. man moo xoolee yéen père seen bopp yu ngande yi. dama bëgg dem jàpp ji dama bëgg julli jàpp heure julli. wala tere julli wala jàpp seen bopp yu ah, bi kii dama koy bu dem. laa ilaha illallah. woo boo demee fu ñuy gaañ. dañuy rey amuñu amuñu doole. am na sens. laa ilaha illallah toogal xaar. ay. moom oh, lii mbay jàmm la moom ma jaaxal mbay moom ma dara waaye tubayam ji di mi di waaw yée ma tudd ba allahu akbar ah fii ku fii xanaa da koo xam waaye fii nag moom mooy fii mooy bëgg lu baax ah doy na baa ngi noonu tubaarkàlla express lu waay bëgg lu baax fi ngay ñëw fii ngay ñëw naa ne fii tubaarkàlla mais nag naa la benn affaire jëriñoo de ah, xaaral ma laaj Fatim lan lan moo am foofu waaye fii lu fi des yow xanaa gisoo manque de mi nga xam ne jënd